Ndeysaan dox ci diggante Gandia Fama ak Bébé Darou Gandia Fama ikiri parcelle mbooloo la nekk Ndeysaan Bébé Darou jàmm gën si gàmbaaw la nekk Gandia Fama moo la féetee càmmoñ Bébé Daaru moo la féetee ndijoor Bébé Daaru moo prolonge moo sut Gandia Fama moo xaw a gàtt Gandia Fama Bébé Daaru Bébé Daaru dóor na ndeysaan cokkaasaan na Gandia moytul moytul bu Gandia Fama Bébé Daaru mën na laa dóor nga daanu sóoraaloo xeex bi gauche bi loxo yi dafa jóg. Gandia Fama Bébé Darou. Bébé Darou moytu bi. Gandia Fama daa bëgg a jàpp. mayul. Bébé Darou moytu. Ndeysaan. Bébé Darou Gandia Fama. Gandia Fama Bébé Darou. Gandia Fama Bébé Darou. Ndeysaan Bébé Darou Gandia Fama. Gandia Fama daw na jëli ko da daan da daan daan na ko daan kay da koy daan daa mën a bëre Gandia Fama daa mën a bëre ndeysaan waa parcelle la ngi noonu ndeysaan waa parcelle la ngi noonu ndeysaan ngi noonu yëkkati na nee na jugal oh lamba gi Gandia Fama daan na Bébé Daaro waaw champion c'est de yaa wala tamit